li yu xeqa li yu xeqa pour mu fesal alxaq dëgg wa yubtila mu far albaatil ak kéefér walaw kariha donte bañ na ko de almujrimuuna yéeféer yi nga xam def katu bàkkaar lañu istastaxisuuna rabbukum fastajaaba lakum annii laay jooju mu ngi wàcc keroog bi ñu jàkkaarloo ñoom ñaar abu jahlin moo wax wax moo wax ni Yalla yalla alak ñun ak yeen ñi nga xani ñoy ñooy dog mbokk ndax mom japp na ne yenent bi to mbokk la ndax neenañu mo ñew makka te xala giiri mo ñew makka te xala way akseni ak seeni doom mo ñew makka def nit ñi ay noon mo ñew makka te xala baye ak seeni doom ngir kat woote bi mu woone te yàllaay kenn nañ ko jaamu wéetal ko ñu lank ko rek mu woote ko fukki at ak ñett yu teg ay weer ak i fan ak i guddi wajima asharata aman fi quraysha sawa munaadiyan xawmahu wal xawmu fi lxarami fukki at ak ñett yu teg ay guddi mu di ko woote ñu lànk bañ koo gëm yemuñu ci bañ koo gëm waaye ku ñu dégg ne sax dangaa gëm yonent bi booba nga koy mujjee wax wala booba nga koy mujjee def keroog nag bi ñu sonalee yonent ba mu génn medi Makka yàlla may ko doole mu war a jàkkaarloog ñoom Abu Jahlin dafa ni waxu ko lu dul waxu yëjj leen rek ak xeeb mbooloo mi yonent yàlla Muhammad am daan ni yàlla yàlla ñi nga xam ñoo doon teqale ay mbokk dégg nga de yonent yàlla Muhammad moom keroog ba ñu jàkkaarloowee dafa jublu xeeb la dóor ñaari rakka tàllal loxoom di ñaan yàlla daan ni ko allahumma in in jisli ma waatani اللهم إن تهلك هذه العشبة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض دانكو يالا لين ما ديغون تيوالال مكو تماغي لاي واتال mbooloo mu néew mii ànd ak man bis boo leen boo seetaanee ba saay saay yi maasale leen ne la wóor ni suuf àdduna kenn dootu la ci jàpp te werante amul ni ti Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ñamu àndaloon keroog bu ñu leen faagaagaloon yàlla doot dootul gestu gis ko ko jamu ci kaw suuf ndax kep ku taxaw nek njambar ci diine wotel islam xeexal ko jangale bañu jang bokku nga say mam bokko na ci ñato ko ñu yàlla muhammad léegi nag kon bàkk ba jib na yàlla nangu na ñaan nga ndax ñoom yaakaaroon nañu ni mbir mi ci ñoom lay baaxe ngir seen lim ak seen odet ak seen kattan ak seen pare yàlla da caa dugal loxo moo tax yàlla ni is fàttalikul tastaxisuuna ba ngeen xettaliku rabbukum seen boroom fa sajaba lakum muy seen woote mooy mu nangul leen seen ñaan nga an nii ay bi an na nii naka man yàlla bi na nii naka man yàlla mu middukum aji tëbbu laa leen bi alfin ci junni minal malaayikati ci ay malaaka murdafiina yade wañu yade yañu toggale yàlla junni la waxoon mujj na leen di tëbbu juróomi junniy malaaka juróomi junniy malaaka yàlla mujj na koo yónnee keroog xaswatu bare dégg de Ali Imran wax na ko dégg nga de werante amul ci ni keroog ay malaaka xeex nañu werante amu dégg kon yàlla nee na maa leen tëbbu junniy malaaka waaye yàlla yóbbu na ko ba ci juróomi junniy malaaka dégg nga taajab wa yawmal badri jaa'u junuudullaahi fi amrin mu'in moo tax yàlla ni is fàttalikul yéen jullit ñi tastaxiisuuna ba ngeen xettaliku rabbukum seen boroom fastajaaba lakum mu nangul leen ñaan nga anni bi anni naka man yàlla mu middukum aji dim aji tëbb laa leen aji dimbalee laa leen bi alfin ci junni minal malaayikati ci ay malaaka murdafiina yére ya ñu toftale yére ya toggale laa wax dégg wa maa jaalahu deful loolu mu yónni gi mu yónni malaaka yi allahu yàlla yàlla defu ko illaa bushra lu dul bégal gi mu nam ma bégal jullit ñi wali tat wali ta wali tat ma inna ak it mu dalalee bii ci yónni gi mu yónni malaaka xuluubukum seen xol yi yéen jullit ñi wa man nasru ndax kat ndimbal mënta am illaa min andillaahi lu dul dafay bàyyi koo yàlla de dégg nga loolu inna laaha yàlla azizun aji not la ci nguuram xakimun aji xerañ la de is fàttalikul yusikum ba mu leen muuree annoha sangammentu amana tan ngeen mujjee wóolu seeni noonu minhu mu bàyyi ko ci yàlla wa yunazzilu mu wàcce aleykum ci yéen min assamaa'i ci wàllu féete ak asamaan maa am taw bul wax ni mukk ndox ci asamaan lay bàyyi ndox bu bàyyi koo ci asamaan toq ku mu dal nga faatu kon ndox ci wàllu féete ak asamaan lay bàyyi moo tax mu ni wa yunazzilu mu wàccee moom yàlla aleykum ci yen jullit ni min assamaa'i ci wàllu féete ak asamaan maa am taw liyutahhirakum bihi ngir mu laabale leen ci wa yuzhiba ankum ak mu dañal ci yéen riche cheytaan sobek cheytaan iblis mooy jax-jaxal gi mu leen doon jax-jaxal naan leen yéeféer yi dañoo nangam wala mu naan leen bu fekkee ci dëgg ngeen nekkoon duñ leen indi fii bëgg leen a rey wala yurbita wala yurbita ak it ñu takk ak it ñu takk ala xulubikum seen xol ba ngeen am kóolute ak mën a muñ wayu sabbita ak it mu dëgër dëgëral bii ci loolu al aqdaama seen i ndëggu ba du nóor ci beeñ bi dégg nga fii keroog yàlla wane na fi boppam dëgg dëgg dëgg dëgg ndax ku war a jàmmaarloo ak ay noon ñu ngi jàkkaarloo ak yow nekk junni ak lu topp nee naa la seen ñoom seen lépp mat yow sa dara matul nga toll ci ñett téeméer ak fukk ak ñett mbir mi bi mu mettee ci ñoom fa fajaru badar yàlla dafa yónni ngeen ngelaw bu ne fay fay fay ñoom ñi war a jàkkaarloog ñi ñuy xeexal ngelaw la dugg leen ñu nelaw kuy xeex ak say noonu ñu jàkkaarloog yow ëpp la doole ngay nelaw yemu ca yàlla wàccee taw yàlla nee na taw bi ñaar moo tax mu wàccee ko parce que bi njëkk mooy barab bi ñuy xeexe gannuus la te ku ne xam na ni boo diisee gan. sa kàttan néew ngay dox ci gannuus bu yàggee nga sonn yàlla def ak par mooy wàccee ndox ngir suuf si dëgër ku ne xam na ne bu tawee ba ba sewat sa tànk dootul dugg ci suuf loolu genn jàppal jàppandal la bi ko ñaareel yàlla nee na ik ak it ma laabal leen ci sabab bi ma wàccee taw ixtilaaf am na ci boroom xam-xam yi ci façon laabalin bi yàlla na ma laabal saaba moo tax mu ni fàttaliku leen ba leen ba mu ba mu leen muuree ay nelaw ku jàkkaarloog say noon di nelaw mu jël ngeen am sécurité dégg nga mu wàccee seen kaw ndox ngir lan laabal leen ci ak mi ak it mu dajalee jax jaxal gi seytaane doon jax jaxal seen xel yi ak i lan mu takke ci seen xol yi ngeen am kóolute ne yàlla moo leen di dimbali ak lan mu dëgëral leen ci seen tànk yi ba di nuur ngeen mën a jàkkaarloog seen noonu xeex xam nga li doyoon na waaye yàlla yamu ca dafa jëlaat ak ragal sànniwaat ko ci xolu yéeféer yi xam nga ki ngay xeexal bu la ragalee du la ñeme lii yépp yàlla jàppalee la ko yemu ca mu yónni juróomi junniy malaaka moo tax ko ànd moom koo mën a song danga koy daan ku la nga daan ko waaye foo jëm te ànd ak koo song mu daan la ku la song daan yenent bi li mu am ba réaliser li mu réaliser ndimbalal yàlla la donte nag njàmbaar ci moom la yam ñi mu àndaloon ci ñoom la yam ba yàlla tagg leen muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkufaar waaye ruhamaau baynahum taraahum rukaan loolu koo rëy te kenn moomu ko ku dul duma dañ di ko wax naw sab sëriñ bëgg ko wala nga yaakaar ni defal na la Lola ken defal ba tax nga jël sa serigne diko ko dëkkaleeg sahaba xamone xew sa serigne ding koy xam bi miri baxé neex rek la kër sedd ngay jaxan di waxtan fum la neex nga tok mana wax lu la neex waaye ba muy metti say serigne dëng dëng yalla ni iz fattali kul yuhi bamulo dewe la deewee rabbuka sa malai ilal malaayika jam ci malaaka wala iz yuhi iz fattali kul yuhi bamu dewe deewee rabbuka sabaram di ilal malaikati jam ci malaaka bamu len mu leen ay malaka, anni naga man yalla ne len maa ko maa ngi ànd ak yéen ci ndimbal fa sabbitu yi saxal len Allah dina ñinga xane amanu gëm nañu de na ngeen leen dëgëral ci ndimbal sa ulxi xal sat naa man yalla fi qulubil ladina ci xolu ga ñinga xamni kafaru weddi dana ci sanni roba ak tapet roba ak tit roba ak ragal neena la ki ngay xexal bu la ragalé du ngeen lo yalla de nga yalla ba pare xam nga fi mëna na doy ba pare mo waxat malaaka yi ni ñu wara def lan la wa yalla wax malaaka yi fadribu dor leen bu ngeen demee fawxal aw naay ca kaw ndodd ya jël leen simmin yi dóor ci kaw nodd noon yi wadribu minhum del leen leen dóor ca noon ya kulla banaanin yàlla moo jàngal malaaka yi ni ñuy xeexee xam nga malaaka dafa mel ni rëboo moom daanaka bu ñëwee day taxaw day ñëw rek taxaw te nee nañu bi ñu ñëwee dañoo taxaw comme ni nga ko waxee dañoo ñëw rek taxaw kon laaj bi moo doon yéen lu leen fi indi bu fekkee da ngeen ñëw war ñoo dimbali ñëw taxaw yàlla ne leen dee leen ngàdd ci loos yi borom boo ko dóoree ci loos doole ja jeex ko yor ngànnaay boo dóoree ci cati baaraam yi ana ngànnaay la day wàcc yàlla ne leen dee leen dóor ci loos yi di dóor ci cati baaraam yi ngeen ngànnaay yi wàcc kàttan yi wàcc dégg de moo tax mu ne fadribu dóor leen fawqal anaaxi ca kaw loos ya wadribu minhum te ngeen di dóor ca ca ca ca yéeféer ya kulla banaanin ci bépp cati baaraam dégg nga loolu de yàlla ne zalika loolee mooy mbugal moomu di leen dal ci àdduna bi annahum naka ñoo li leen ko yóbbee mooy saaqu dañoo wuuteeg allah yàlla wa rasulahu ak yonent yàlla muhammad wa man yusaaqihi te yëgoo ni képp ku wuuteeg allah yàlla wa rasulahu mooy yonent yàlla muhammad ay ndigalam fa inna allah naka yàlla shadidul iqaab aji tar la jay duma zalikum loolu seen muy mbugal mi fa zuuqu mos leen ko yéen yéeféeri fii ci àdduna wa anna lil kaafiriina te ngeen xam ne nekk nañu ñeel yéefari ëllëg alaxira azaban naar duma yoo xam ne safara la de yaa yoo ladina amanu ee yéen gëm yàlla gëm yonent yàlla Muhammad iza la alladina saa bu ngeen dajee te gaa yi nga xam ne kafaru danoo weddi zahfan ñu di way baf ngu baf ngu mooy ñu nekk ay mbooloo fala tuwalluhum bu leen leen di méngale al adbaara seen ginnaaw mooy bu leen di daw wa man yuwallihim yàlla nee képp koo xam ni me nga leen mooy daw nga leen yow may jim bisu keroog bi nga dajeeg seen noonu du wurawu nga wan leen seen ginnaaw daw illaa mu tax itam lu dul koo xani dafay petu mooy dafay petu dafay laqatu li idaali ngir xeex aw muta illaa mutaharrifan loolu koo xam ne dafay petu li xitaali pour xeex mooy am position bu mu mën a jàkkoorlam noonam aw mutahayizan wala ñu dàq ko muy laqatu ilaa fi'atin jëm ci mbooloom yéeféer yi mbooloom jullit ngir ñu dimbali ko kooku day bu fekkee daa daw ay noonam faqat baa kooku day dina dellu Begadabin cemer, melai baik ojel, omah wewu, todek wayam, elzek, jahanam, sabar, lah itu orang. Om bisa penuh, buffet camp mo juga, al masir mo juga, buffet camp ni moay sabar ada. Iyalah nih anak, iyan, julen nih iyan, lah ya bakal. ngeen dajeeg yéeféer lu ñu bari bari bu leen leen di daw man ngi leen di xamal ni bu ngeen dajeeg jépp ku daw am nga jëppiteg yàlla buy wàcc sa kaw ëllëg yawmal qiyaama te ëllëg bu ñu dajee dinaa la tabbal safaraw jahannam lu dul koo xani daw na naam waaye waajal boppam a tax wala mu ñu dàq ko mu daw dugg ci mbooloom jullit ñi ngir amaat doole mën a songaat yàlla bàyyi loolu maa ngi suuratul Anfaal ay fukk ak juróom-benn léegi nag keroog ba ñu jógee Badar am ay sahaba yo xani dañuy bakko ak a tiitaru ku nek nan ma def nangam ku nek nan ma def nangam yalla di len jangal ak yar nu ñu waxe ci kanamu yonent bi ak nu ñu war a ci kanamu yonent bi ba pare wan len ni bu doon dong du ngeen gañe kenn man yàlla sama kattan ak sama ndimbal moo ci dugg moom lay wax ne falam taqtuluhum rayu leen yéeféer yi keroog badar ci seen kattan walakin allaha waaye yàlla xatlahum moo leen rey ci dimbali gi mu leen wa maa ramayta jamoo yow yonent yàlla muhammad is ramayta ba nga sànnee dégg nga de ndax yonent bi keroog badar dafa day tibb suuf bu jëmee suuf danaan saahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad man man xamala zulma bu ko waxee bu ko sànnee day day mel ni day mel ni misir bu ñu dóor te xam mu loxoom bii lu mu bari bari bari bari ci ay ay ay yu ndaw bu ko sànnee lim bi muy rey nekkul ni moo nekkoon ci loxo bi ah, ah. yàlla loolu la ko xamal maanaam yor luy tolloog fukki xex nga dóor mu ray téeméeri nit yeneen juróom ñeent fukki fu mu jugge ko yalla lol lay jangale motax mu ni ko yow ya jam bi ngay sanni muy dugg ci seen beuti te ku mu dal day melni fetal fettal na dóor bu seeri wax na ko ci xam ba mu ne warama bil bil hasa fa akhshada jayshan mal hasa indahu wa mal ilqahu kooku moo ñu moo moo ñuy jàngal li aaya ji bëgg a wax nee na sànni na ay xeer jëmbaraayam ay xeer yu ndaw te bi mu koy sànni objectif mooy mu jam ay lëlu soldat waaye li ci yéeme mooy malxasa indahu bi muy sànni ay xeer newul ci moom wama ilxaawu te sànniwul sax far waaye bu nee nii loxo bi day mel ni missile bu ñu dóor yàlla ne ko maa ramayta iz ramayta uh-huh. du yow yaa jam ba nga sànnee uh-huh. walakin allaha rama yàlla moo jam waaye luy sabab ba wali yabliyal muminin ngir yàlla nattoo ko ñi gëm yàlla minhu ci loolu balaa at muy xéewal bul ko firee nattu de baatu balaa bu ñu dajee ci yéeféer ak jullit mu jëm ci jullit xéewal lay dox bu dee balaa mu jëm ci yéeféer bi nattu lay doon moo tax mas naa koy wax benn mbokk ma koy wax naan ko man yàlla daf ma nattoo ma bëgg seet Seydina Haaji Maalik mu ne ma waroo wax nattu la ma ko kon déggoo alxuraan way yal wali yabdiyal muminuuna minhum balaa <laughs> kooku may lay firi te loolu li la yàlla may ñu koy tiitaroo la gën a rëy nattu la bu mu la defal ndax lu tax yàlla dénk na la koom gu bari xam nga xéwal la waaye wallaay nattu gën a koo rëy ndax kat dërëm bu ne ëllëg karam yàlla di wax fu mu jóge dërëm bu ne nga def ko ñaar dërëm ñaar dërëm juróom ñaar dërëm juróom fukki dërëm fukki dërëm cent francs ba muy egg ay million loolu lu nattu buñ la bayyi won ngay dund ci sutura nga deñu ñu teel laa lijjanti nga xol fo jëm ko gën a yomb ah moo tax pencum yalla yonent yalla sulayman mo ko njëkk a yàq moo koy gën a yàq ko mat ñi ko jotali bu ñu mën leen ko jotali lu ca dul noona jégalu ko yalla jégalu leen ko yalla yalla jégal ñu li ñuy joom ta nangul ñu li ñuy jëm su ko defé inshallah allah la won ubbee bi nak su bobu ñu ñëwé fa lañuy tambalé ci la ñuy yàlla jàngalee nag nan la ñuy séddalee mang insha allah bu jógee tee ci xare loolu ñun la jafe yomb yàlla innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi mm-hmm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu